il faut que ñu toog waxtaane ko parce que opportunité d'affaires la bu am solo mais c'est un secteur boo xamante ni caractérisé par l'informel bu ci parti bu baree bari boo xamante ni am na ci leneen li aussi mooy aujourd'hui man sénégalais bi moom moo ci gën a sonn parce que sénégalais bi moom mooy tabax taleem mooy tabax route mooy tabax autoroute am mooy tabax gare ceeram am et ensuite moom ñemewul taxaw sax demander un service de qualité à la fin te pour man loolu dafa nekk benn injustice boo xamante ni injustice notoire la su grève amee tamit moom il paye le lourd bi te ñëpp dinañ jooy acteur yi tey jii boo xoolee je je sais même pas ndax à la table des négociations y mais normalement consommateur bi aussi dafa war a taxaw parce que moment de crise la crise opportunité la ci suñu réew yi dama koy wax toujours damay wax crise ci suñu réew yi opportunité la parce souvent bu ñu demee ba egg ci cëppaandaw la dañuy gis ne y a eu un vide juridique moo tax quand Omar Youm est venu au département du transport bon je le dis pas parce que c'est mon maire ah Bouba. on revient à Thiadiaye. saa Thiadiaye. kenn waxuñu xabiréer na sànni sànni bul. non dama xam ne foog nga ñëw ci léegi quand il est venu au au dans ce département là peut-être que en homme de loi euh, avocat moom ak Mayacine Camara ils ont essayé de retaper les textes de de travailler sur les textes et je pense que ne du point de vue législatif loolu mooy le premier gap qu'il faut régler pour que pour régler le statut. de ce secteur-là dans dans dans ces dimensions yu gën a sori te professeur bi dina ci dellu siwaat parce que daf ci am ay vides juridiques yu bari qui sont exploités souvent mais souvent tamit dañuy subir les contre-coups loolu moo tax d'ailleurs pour nga réglementer ko dégg nga quand le ministre d'ailleurs démb moom ci boppam moom mooy toog il parle de wargaynde il parle de ndangam il parle de nangam lui-même dans son jargon mooy consacrer le le le le caractère informel du secteur loolu pour man lu am solo leneen li mooy dans ce débat il y a il l'absence des collectivités territoriales et que partout dans le monde aujourd'hui le le transport dañ koy décentraliser le TER là bi ñuy wax train express régional mais le TER c'est le c'est un fruit de la décentralisation c'est-à-dire que la municipalité dafa am les région tey jii waroon nañu liggéey ci benn système de transport boo xamante ni ñoom dinañ mën a xeex ba am seen benn autonomie xeex aussi ci qualité de transport bi parce que la grève lan la ñu jàngal tey mooy que ne c'est un secteur boo xam bu taxawee dafay dafa transversal dafay toucher secteurs yu bari et aujourd'hui pratiquement les secteurs les plus névralgiques de notre société dañu nekkoon complètement à l'arrêt et aujourd'hui dégg naa tey ji ay économistes jéem a évaluer sur le plan mais le préjudice moral moom moo ëpp doole te loolu xëy na mënuñu ko xayma mooy ki nga xam bëggoon na dem hôpital mënta dem ki nga xamante ni amoon na rendez-vous am mënta dem ki nga xamante ni euh, su ratee rendez-vous am musiba mën na ko dal effectivement te mënul ta dem donc je pense que ne ça posé en toile de fond la question de la mobilité urbaine. Mm-hmm. te loolu dafa nekk benn benn faiblesse boo xam ne dañ ko am moo tax je continue de penser que ministère des transport sa place stratégique dafa tax ma jàpp ma bokk ci jàpp ne ci Sénégalu 2021 waruñu ko confier sax à un politicien mais dañ ko war a confier une cartographie de toutes ces ressources humaines yi nga xam dañu xam mobilité xam transport xam secteur bi yàgg ci

jafe boo xamante ni bu mag la hmm. boo xamante ni am na et encore une fois le Sénégalais paie le lourd tribut te Dieu sait que luy lui qui qui qui qui construit les routes les autoroutes et au finish mënul demander un service de qualité hmm. donc ñoo ngi jëm ci ay collectivités locales aujourd'hui l'absence des maires dans ce débat là dafay dafay wane ne euh, sunu décentralisation motagut li mu war a doon tu a raison Pape tu imagines Saint-Louis avec un tramway. wala am solo ak ay au bord du fleuve di daw. au bord du fleuve effectivement. dafay rafet voilà loolu.